salaamaaleykum mbokk yi nuyu nañ leen bu baax a baax di leen ziyaara foo leen mën ci nekk ñu ngi leen di bàyyee xel am mbégte bu baax a baax jàkkaarloo waat ak yéen sur la 7 TV. ci seen émission 7 voix du cœur euh, di wax ne nag chaque mardi ñu am mbégte lool nag ànd ci ak yenn ak ñi nga xam ne rek ñoom la ñuy fekki ji euh, jamono ji may wax ak yéen ñu ngi fii ci fi nga xam ne mooy Tivaouane Peulh ci CEM bi ñu ñëw euh, set si ki nga xam ne rek mooy ay satu saw ay satu saw nag doon rek koo xam ne xam nañ ko bu baax a baax a baax ci wàllu théâtre muy nag bébé Aïcha bébé Aïcha nag nga xam ne lu ne gis nañ ko ko ci wàllu culture mu def ci yu am solo am solo tey dañ ko seet si ndax nag euh, ci li nga xam ne rek mooy xuus euh, ci li nga xam ne mooy viyam euh, ñi nga xam ne rek ay jaar-jaar la mu am ay jaar-jaar nag yu am solo doon borom jom doon liggéeykat waaye doon koo xam ne nag dafa teel a génn euh, pour nag euh, mën a euh, teral yaay teral baay ginnaaw bi mu nekkee mag nag ci seen famille ma bàyyi ko tey mu daal di daal di nuyoo laataa ñuy ñëw ci moom ci ay jaar-jaaram yi nga xam ne yu tar la Bébé Aïcha ma bàyyi la nga daal di nuyoo. oui mon amour nuyu la. <laughs> fay naa ziar la bu baax. di nuyu ñi nga àndal. wax dëgg fa yàlla ñu nekk ñoom tamit ay nit ñu baax ñu neex a toog jàkkaarloog ñoom ñu lay ñu lay mhm. donc euh, di nuyu di leen di kontaan tamit ci waa 7TV. Mhm. ngeen def déplacement ak dérangement rien que pour moi. Mhm. donc loolu ça fait plaisir. donc maa ngi nuyu sunu mbokk téléspectateurs yi fu waay mën a nekk nga nekk jullit nekk doomi Sénégal maa ngi lay nuyu di la ziar. di leen baalu àq di leen baal àq. Mhm. Euh, kon nag euh, comme ni mu ko waxee rek euh, ci moom la ñu fas yéenee àndal tey ci ay jaar-jaar waaye nag di wax ne gis nañu li nga xam ne rek mooy jaar-jaar bu riche bi nga xam ne rek am na ko laataa ñu ciy dem dañuy dem seetaani portrait ci li nga xam ne rek mooy wàllu culture bi nga xam ne bi mu ci duggee léegi dañ ko ci ràññee lool lool lool ñu dem seetaani portrait bébé Aïcha. mooy kan léegi léegi lay doon sur la 7 TV ci seen émission 7 voix du cœur ñu ànd ceeg Awa Diallo. Aïssatou Sow ñu gën koo xam ci ay Aïcha mu ngi juddoo ca Gunaas nekk ci banlieue bu Ndakaaru waaye mu ngi màggee ca Louga ci wetu maamam bu jigéen moom ay Aïssatou Sow di xam xamle ni jamono ji muy xam ne moom dafa amee handicap mu ngi am juróom-ñett jàpp juróom-ñeent at naam sax neexu ko muy wax ci neen bi mu doon waaye loo xam ne lu ñëpp di seetlu la. waaye nangu na ne destin la te moom rek moo nekk nen ci famem bi mu amee fukki at nag la door a xam ne moom taayam du yokk benn yoon. jamono ji nag moom ay Aysatu Sow war naa làq lu ëpp fanweeri at wala lu ko tollool moom nag mu ngi gën a fësee ci téléfilm bu ñuy duppee ëttu biraa doon daw ci 2STV moom nag star la avant sax ñu ko gën a xamee ci bébé Aïcha di surnom bu ñu koy duppee ci télé bi. askanu Sénégal bëggoon nañ loolu di seetaan Sanekh wala sax Tane Bombé ñoom ñi nga xam ne dañ leen daan retaanloo bu baax a baax waaye moom ay Aysatu ba mu fësee ba tey askan wi bëgg nañu ko loolu. moom nag mu ngi bokk ci njaboot goo xam ne am na juróom-ñaari góor ak benn soxna moom rek moo ci dal di mel nii te sax mooy taawu famem te dara fësalul woon ne dina nekk ab comédienne bu ñu xam ba xàmmee ko rawatina ci producteurs yi waaye ay atu bokk na ci li tax moom ay Aïcha dafa dooree ci dara ba egsi fi mu doon tey tey nag dem na ba tolloog yenn comédien yi def na ay ndorteelam ci troupe bu Yamar Mané nga xam ne façon na ci benn téléfilm sama yaay moom nag alpulaar la sën seen ak Caba euh, Cees mi nga xam ne dudd na bokkoon nañ ci ñi ko gënoon a neex tey nag théâtre bi may na ko mu yor boppam moom nag ku élégante la te dafay defar ba mu baax te it day débrouiller nag ci wàllu français naam nag jàng na alxuraan ba sori papaam mi nga xam ne sëriñ la moo ko doon jàngal waaye lu ni mel nag terewu ko doon ku goog te coquette bokk na ci li mu gën a bañ hypocrisie waaye nag bëgg na it parfum lool. jërëjëf euh, ci jaar-jaar bu am solo boobu gis ngeen ko kañ la door li nga xam ne rek euh, mooy aar bi ba jaar-jaaram lépp lépp lépp muy yoo xam ne rek euh, yu am yu marke la Aïcha ma bàyyi la rek ci jaar-jaar boobu nga xam ne gis nañ ko. Mhm. bi ngay dugg ci aar mu doon loo xam ne yombul woon mhm. tey lan nga ñu ciy wax. waaw parce que Njaay sax da faral di wax. tubaab bi naan tout est mhm. début est donc tout est début est mais pour moi non man ci man sama début difficileul yàgg naa ka wax te damay fiyeex di ko wax. Mhm. dama xamanteeg tata Aminta Mbaye mu nekk yaay ju baax ak ñoom ay doomam ñoom Kumba Bàccili ñu nekk nit ñu baax ñu riis ñu gën yàlla xam na ko ma yegg si maire bi gis ma bëggal ma boppam yóbbu ma ar ko. Mhm. may profité waale di jaale Pape Demba bi ma demee moom laa fa fekk. ma toog di seetaan mu may xool ba ci kanam ne ma yéegal defal li kii def. moom Pape Demba mi génn àdduna semaine bi wallaahi. Mm. moom moom Pape Demba lam papa Bas Jaxate yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana moom it mu ngi toog ma yéeg di joué ba ci kanam mu ni ma yëngalal sa ndara pound bi. ma joué ba pare ñëpp kontaan mu ni ma defoo fi dara. Mm. may jooy ma pare mu woo ma ne ma jiwe nga de damay xool sa xol fu mu toll. artiste du xat xol. luñ la wax reetaanal artiste noonu lay mel mm-hmm. Pape Demba Lam mm-hmm. mu nekk loo xam ne moom dafa def ci man moom Pape Demba Lam moom mi génn àdduna ba ki Dembo Njaay bi ma ko gisee man damaa tiit naka nga ko yégee desem man estati laa dugg ma gis Manumbe moo ko dugal mm-hmm. ma ne lii lii lii mooy lan c'est pas vrai ma xool muy moom ma dugg ci sama papa Fallou Dieng sama papa la mm. ma dugg gis moom tamit mu dugal ko ma ne ko laa lii mu ngi bëgg a nekk sérieux hmm. donc c'est vrai ma tapé YouTube gis doomam bi ji jooy et tout ça non mu touché ma lool parce que dafa nekk nit ku riis nit ku gën ku am imaanu billah nit boo defee rasta am noo mel ñu bëgg laa cadre fenn fii mais xol mooy nit xol mooy nit te xol bu rafet la yor ndeysaan bu leen basé wu ci rasta yeeg lam yi lu la moo ko bëggal boppam artiste bu bëri talent mu ngi noonu. ku laa biir ku bëgg doomi aadama te yàlla rek tax. mën a def tamit ci secret ci sutura. ndax dama daan jóge Kër Massar paas onze bi laa doon jël. dem ba foofu maa ngi soog a départ des fois damay dem mu leer ma ne paasu dem laa yor aw ma paasu retour mais ragaluma damay paas dem su ma demee. mañoon laay fekk fi mu toog ma ne ko mañoon aw ma paas mu yëkkati xaalis jox ma. ma jàll ci Ibrahima Mbaye soppe du ma yem ci kenn de. Mm. ne ko Ibrahima Mbaye aw ma paasu ñibbi de. mu yëkkati paas jox ma. moom moomu def may jox paas. Mm-hmm. ñu nekk ay artistes yoo xam ne. barki yàlla man. kon boobu jamono jooju fan nga doon jóge Kër Massar fii laa doon jóge di dem euh, di dem ba Douta Seck. Blaise mm-hmm. Senghor. waaw di fa répété ji. Mm-hmm. su ma amul paas damay lijjanti paasu dem su may ñëwaat. ki ma àbbu paasu dem dina ma dinaa ko fay. ba dese lu ma yor. ndax artistes yu mag yëpp dañ ma doon jox. kon da ngay ñëw ñoom ñëpp ñu bëggandoo la. seen dañ ma bëgg dañ may daw gàttandu ma yëkkati ma. ba ci bili mi ngeen di wax bili. day daw su ma séenee day daw yëkkati ma mhm. kottuma Issa Laye yu mag yëpp noon la mhm. te boobu ñun ñëpp ñu ngi doon doorandoo ñu gis ne mhm. euh, da di jigéen euh, koo wax mu ne ku am jom la euh, ma bàyyi la nga wax ñu ci say début ak sa sa waa naka la demee woon waa début bi comment on dirait <laughs> yéen daal da ngeen a doy waar métti mënul mënul mënul mënul ñàkk ci doomi aadama tuuti de difficile comme ni ma ko waxee woon mënta ñàkk mais da ngay ñafe rek gëm ko. Mm-hmm. Mm-hmm. xam nga di ko jaayante. ba yàlla ñëw tàggu sa papa waaw damay doon tàggu sama yaay. ne ko yaay maa ngi dem mu ne ma amul problème dama la jàmm sama doom nga dem si jàmm ñëw si jàmm ma dem si jàmm ñëwaat ci jàmm. Mm-hmm. donc amuñu benn problème. Euh, bi ngay njëkkee lekk xaalisu théâtre neexoon na de xam naa ndax nekk nekk mag ci kër oh, ah, euh, uuf say rakk di ñafe pour am loo indi nga jékki-jékki am loo moomal sa bopp premier xaalis boobu naka la demee woon premier xaalis boobu damaa dem tourné ñu fay ma sama cachet mu bari woon ci samay gët lool ndax daawoo yor somme yu toll noonu waaw mhm. am naa sama benn rakku yaay dam ma koy nuyu de passage muy ay satal moom ma ak sama rakku yaay ki bokk sama yaay nday ba faati aarunu mu ngi fi tiwaanu pël sama rakku yaay la moom sama yaay ñu bokk nday ak baay mu ne ma Aïcha yaa ngi soog a dugg commencé nga am demal ut mm-hmm. ma ne ko terrain man ay rakk yu góor laa bu ñu màggee dinañ jënd kër dugal ma ci seen jabar yi di ma toggal di ma fóotal di ma paase ma ne ko man namu ma dara lu may yor dama koy def suñu kër mm-hmm. faj ci samay soxla ku soxla su ma amee ma dimbali la te yàlla tax samay rakk ku soxla dara ma defal la ku soxlawul dara ma def ci sama boppu def sama kër. donc loolu moo nekkoon sama objectif. ndekete aar ay fan la. ay laps de temps la. man pour man booba maman boobu mu ngi neex pour man loolu mooy continuer. mooy continuer waaw mhm. xel bi ma am tayit aw ma ko woon boobu dëgg la nag rëccu ma mhm. bépp mbaax bu ma ci mës a def mhm. muy sama mbokk muy sama xarit muy sama dëkkandoo mhm. rëccu ma dara lu ma def ak li ma def ci sama bopp rëccu ma ko mais bu démb doon tey dinaa sàcc sama bopp heure bi fekk tey loger du ma ci fekk dinaa nekk sama kër euh, tey ji en parlant de loger même du lool bi nga indee xaalis premier ñaq boo jox sa waajur ndax mën nga ñu ñëwal ci loolu waa dinaa ci sa war a wax parce que sama yaay laa ñëw fekk mu toog parce que moom li tax ñemewu ma ko woon indil xaalis bi. Mhm. parce que moom bëggul woon ma def théâtre. Mhm. moom def maa jur fi ma war a juree yar ma fi ma war a jaree jàngal ma alquranul karim tuddee ma yaayam mu bëggoon man may jàngale. Mhm. moom loolu moo nekkoon bëgg-bëggam ci man. te yàlla xam na ne loolu loolu la bëgg ba tey jii. mais peut-être nul ne peut échapper son destin. donc lii moo nekkoon sama amour. ma bàyyi moom li mu bëgg ma dem def man li ma bëgg. Mhm. ba tey waxuma dara def ma bàyyi rek. mais ba léegi may wax ak yow bu doon sagoom tey tey tey. nga dem ma teg ay nit di leen jàngal. Mhm. loolu moo nekk bëgg-bëggam jàng naa ko mën naa ko. Mhm. lépp lu ne ci man moom moo ko def ci man. Euh, bi ngay indil sa yaay sa première cachet. dama kaa woo ne ko paa bu ko yëg yaay nan la def. mu ne ma nu ñuy def ma ko demal ci bitig bi nga jënd saako ceeb bu ko bu ko indi ci kër gi de bàyyi ko foofu saa boo xëyee nga dem tibb ñaari kilo wala kilo bi ngay soxla jëndal diwlin ravitaillement li ci de sama de dakaa dajale def ko ci ron lalam hmm? bëgguñu sax paa bi xam ne fayeeku naa di ko dugal ci kër gi ba bi yàlla demee nag ba mu xam ne man lii laa bëgg ba mu bàyyi ma ci sama indépendance làqatootuma su may hmm. dem ma ne ko papa maa ngi dem ci yow mu ne ma demal ci jàmm ñëw ci jàmm hmm, xam ci laa nag di génnee di jugal ci kër gi mm. te ma wax dara mm-hmm. mais début bi moom wallaay dama doon laqatu. dama doon laqatu parce que bëggul mais amoon nga fierté yëkkati ñëw jëndal. loolu dafa neex saako ceeb. loolu dafa mm-hmm. man li may jël di ko def ci sama biir neexuma wallahi neexuma dëgg la nag euh, saaku bu amul dara du taxaw. Mm-hmm. il faut nga lekk pour nga mën a taxaw mën a tenir mën a dem liggéey pour indil indil sa kër. xam nga mais dafa neex nga yëkkati fekk sa yaay toog nga jox ko. nga fekk sa papa <coughs> toog nga yëkkati nga jox ko mhm. buñ la ñaanalul sax man def na ma mbégte mhm. ak bànneex parce que loolu dafa neex. dafa neex te lu rëy la dafa neex euh, ba tax na nag euh, dañuy dem euh, ci benn témoignage muy koo xam ne rek daanaka dama naan dootul xaritam dootul magam mais ñoom ñaar ay seex la ñu ah muy Umu Kala ñu dem déglu ko daal dellu léegi ci waxtaan bi sur la 7 TV ci seen émission 7 voix du cœur. sama rakk la sama seex la sama idole la sama xarit la. ba ne xamante ëpp na 15 ans sama doom bi ma mujj am na 12 ans boobu juddoogul bin kay xam benn euh, rakkam doomu bàjjanam moo ma ko présenté ku ne wax Adama saw maa ngi koy nuyu présenté wu ma Aysata ba pare nag ma réccu ko bébé Aysa nag nekk euh, xale bu am fulla bu am fayda bu am jom bu bëgg xaalis bu bëgg xaalis nag moo tax mu dugg ci aar bi lu ne def na ko nag bi muy tukki di dem kowet la xaw ma munuma ma bi bi muy dem maag moom ak yàlla kese ñoo ci waxtaan ba confirmé ba jour bi muy dem man ak ñoo ko gunge dem na ba yegg papaam xanaa doo ko yëg am na benn tës boo xam ne papam sax mi ngi ciy wax ba tudd benn xaritam bu tudd mi kala man mii la xam nga kon loolu yàgg na ay sata bi mu tukkee kon yàgg na bi mu demee métti diyaag problème la fa def yim fa amoon yëpp dañ ci daan déggante yaayam bu an mas dégganteeg Aysata day ñëw ci man metti na bëgg na dem bëgg na tukki te amul amul ku ko jàppale mu nekk taaw bu góor nekk taaw bu jigéen yaayam yor ay xale nag tout tànk yaayam di ko jàmbaar Aysata nekk nag ku jullité bu nee la wàccee na kaamil Alxuraan danga naan déedéet seen kër amul ku fa jàngul seen kër xale bu gën a ndaw mun na la wàcceel kaamil bi muy dem bëgg na dem bëgg liggéey amul ku ko jàppale ay ridoom ay daraam xam nga nu ma doon def daf ma ko doon jox pour ne ma nan ko jaay man tamit dama daan génne dara ma ne lii nan ko jaay ñu dem ba lu ne fu nu làmb mu dëgër amuñu solution léeg mu ñëw am ay paquet rida xam nga moom dafa bëgg ay matériel day jënd di denc léeg mu ñëw ne ma kala lii nan ko jaay ma ne ko waaw nan ko jaay su ñëwee comme xam naa rek man su ma amoon du metti amul aw ma léeg day ñëw ne ma jaay nga ko ma ne ko jaayu ma daa di jël 15000 jox ko mu ne ma lii nag ma ne ko jàpp ci li yàlla di def mu dem ba ñëwaat gis nga bi mu ñëwaatee rideau yi ma joxoon pour mu jaay ko ba mu ñëwaatee dafa ne day jënd rideau yooyu dama kaa jël jox ko ko mu xaajaat ko ci digg bi jox ma du lekk bàyyi ma du naan bàyyi ma du solu bàyyi ma mu metti trop nag xam nga bëgg amoo yàlla mayu la dafa metti mu nekk xale dafa metti tombeeg ma yoroon restaurant di biteri amul kenn ku daawul xëy si te ñëwul ne ma waa damaa dégg tës bi ay sata lii la fay dund yéen a ngi déggante mu gi affaire bi dafa dem ba man dafa ëpp ci man ndax yaayam day ñëw papaam day ñëw ay rakkam day ñëw lu nu xamul ci moom bu ñëwee ci man dama leen ko dama daan dégganteeg moom wante su may dégganteeg moom ba nga gis ni Aysata coupé na xamal ne borom téléphone bi day ñëw wala dafa làqatu di wuy téléphone ba jour bi muy ñëw yëguma ko dem bi ma ñëwee fekk mu ne ma man dinaa ñibbi si fan yi waaye gëw ma ko bi ma ñëwee ñu ne ma ta temps Aysata da ñëw na fi fekk la fi ma nekk Aysata ñëw kon de jàmm indiw ko ba man xam naa gis nga jour ba ma demee ba fekk ko seen néeg ñun ñaan ñëpp a doon ànd laxasoo kër ga ko dafa mel ni daja fa am jour boobu metti na seen famille yaayam ay rakkam ñëpp mu gi ñoom dañ doon jooy ndax xam naan sama diggante ak Aysata bin ñu présenté noonu sunu diggante da daan dem ba bin koy mayee ban kay may jëkkër première kadoom bi ko yaayam jëlee sama loxo la ko teg yaayam magale ma ko mu magale ma boppam beñe ba man maa ko defar ko ne wax sëñ kër bu déggoo émission bi dina xam su ma ay Aysata aye ci ay sata bu ñëwee dépense bi du ko teg ci loxo ay sata sama loxo la koy teg ni ma loo toog baax na sama borom kër bi gaañu yàlla na ko yàlla yërëm da daan wax ay Aysata man xam nga lu ma bëgg terrain rek bu ma dugal ummi ay Aysata dafa demoon ba sunu kër la dëkk comme ni mu soo ñëw ci man dafa dem ba comme danoo bokk ndey ak baay maa ngi moom yaayam barki démb la fi jóge maire bi tamit nekk maire bu jàmbaar ku dégg lii même sama ay wujju peccargo ñi nga xam ne ay malien lan bin fi ñëw xew ay sata la njëkk a gis Aysata ba album bi barki démb bi ma koy xool dama ne sama may ga yi da tey ku leen ne xool leen foto yi dinañ koy gisee neneen mu màggale ma boppam nag xew ba macha allah ay sata danoo dem ba mel ni ay famille mu yoroon benn xale bu nuy wax maam Marème xale boobu moo ko yoroon di ko def fa di ko jàppale maam Marème moomu dafa demoon ba ay sata daf ma ko jox ndax sama liggéey restaurant bu bari kooku dafa dem ba sama rakk bu ma bokkal ndey ak baay takk maam kon xam nga léegi ay famille lan maam Marème fi di dem waalo di say waalo loolu lépp ci moom la. li ma dund ak moom ci lu neex bari na ci lu naqari bari na bariwul waaw boo déggee man ne bari na bariwul maa moom altine la ak talaata léeg day tëj néegam ñëw tëdd si sama néeg ñu fanaan ba bët set léeg damay jóg bàyyi ko fa mu tëdd ma dem liggéey léeg ma yëngal ba mu yëngatu fajar mu yeewu man moom xam na ma. Aysata moom wax dëgg yàlla lu nu dund ci li nga xam ne maak moom kii gëw ma ne na kii na de réeroo du am ñun ñaar dañuy waxante lu léeg-léeg tàng sama xol tàng ñu wax ba ni ñaar ñi léegi ñu songoo xeex bu nu paree pare nañ ci kenn ma suñoo tàccee sante kenn ma suñoo àtte lu nekk nag maa ko mag fuuf ki topp ci man sax ak mag waaye daf may conseillé dama wax loo xam ne sama rakk ma bokk ndeeg baay sax doon ma ko conseillé maag bébé ay sa ñu dund lu metti xanaa mu bëgg def te du am day metti ndax moom loo wax mu ne la sama yaay yaayam dafa sonn de ay sa ta bu mu sonn yaayam sonn na ko fukk boo déggee sonn na sonnul di ay yelwaan mm-hmm. wante yor jaboot dafa metti jaboot yi nga xam ne ay xale xam nga ay sa tamit ku mag nekkoo yenn mag yi yaayam nekk jàmpaar na ku mën a sëy kuy muñ jour bi muy tukki benn téléphone simple la yor ak tablette tablet boobu bi muy dem man la ko bàyyee ak ay photo bi muy tukki Koweït tablette boobu laa yor souvenir am ba bi mu ñëwee fa la ko fekk ay dara am ay ridoom dama koy ñaanal comme li bëgg tamit comme aar bi moom la bëgg te moo nekk ci xolam maa ngi ñaan yàlla dooleel ko ba fi ñuy dégg ñépp ñu dégg ko di wax tamit gars yi buñ koy fàtte nan koy bàyyi xel moom tamit mu nekk nit ki nga xam ne gis nga nit bu bëggee day jëli su fekkoon man palaas bi mu tooge falaay tooge ma bëgg dëgg la de duma xaan ñëpp woo ma waaye dinaa dem ci nga xam ne fu ma fa génnee dinan ma woo fi nga koy gis ni dafa rëy ni mu baree tiita noonu la rëyee li ma koy wax léeg-léeg day dekko ne ma ne ko du gensati nga dangaa gens bu ne ma yaa ngi yàq sama der bi ma ne ko gens da ngay def boo déggee gens bi nit ku nekk am na jukko léeg-léeg day toog ba si yàgg rek xëy na li ngay bëgg te doo am soo waxee ak fi mu lay tontoo rek da ngay xam ne kii su ngeen ko toppee du ngeen dem moo tax ma naan ko day gens bëgg na nag du fëgg ci buntu kenn ne ko may ma wala lebal ma loolu moom xam naa ko ci jukkoom man mii tey damay daan doole amul de wante lu mu bon bon bon léeg-léeg gis mu ñëw ngëb dara ni ma kala am ma ne ko mu mu ne ma xoolal même 2000 buñ ko ko mayee day ñëw jox ma sama wàll même 2000 buñ ko ko weefee danaan ma weef naa la téeméer amul kenn na ko ko dul may xaalis sa wu ma ne diw may na ma xaalis. jërëjëf doy na waar ah euh, doy na waar xol tooy na euh, Aïssatou <laughs> waxatoo de. lu muy wax kala. dégg nga li mu wax. ndeysaan li ngeen dund seen jaar jaar wallaahi euh, ma gis muy ay moment yoo xam ne xam naa ku xuusoon ba ci biir moment yu doy waar la. yi fi jaar dafa bari yàlla xam na ko. fi jaar dafa bari mama boobu noonu mën naa ne mën naa ne sax man moom kese laa doon gis. moom dong laa doon gis. ngeen am plus de quinze ans. moom mu ngi teraanga yi ma ko defal. wallahi moom teraanga yi may defal la ëpp na foofu defal gore di wax li ma ko defal mais li ma koy defal li may defal man moo ko ëpp foofu muy mbaax gi muy jàmm bi muy respect bi ba ay doomam dañ ma jox cër teg ma sama place lépp moom la koo waxal mu ne la sa tante Aysata demal sa tata Aysa defal lii defal lii sa tante Aysata ba ay doomam yàlla seede na ne dañoo napp ci man mm-hmm. ba ci lu ndaw li mu mujjee am gëmeewu ma léegi la nekk xale bu góor rek ma naan ko bu noon sama sago ba tey dama lay uuf mu naan ma tànn tata nag léegi nag màgg naa nag xam loolu dafa neex ay raqam lobe ah ñoom ñoom faala non ba ci ñoom usay ah sërif nga xam ne moo takk tey sama doom nga dem ba famille famille yi nekk benn famille. nekkatul ñaari euh, mi ngi wax loo xam ne euh, da ko wax ma gis say rongoñ tuuru. muy sa demum kowet muy loo xam ne euh, defoon na fi euh, toole uh-huh. ma bàyyi la nga ñëwoon ñu ci naka la demee woon da cee jooy bay bëggati ndeysaan yendalul lekkatul naanatul saa bu ma déggee téléphone moom ci boppam def may dëgërloo du du jooy hmm. danaan ma di nga ñëw yow yaay ñëw dëgër dëgër dëgër dëgër ba nga xam ne man sama xel day dal hmm. léegi bu sama xel dalee ndeke bu coupé moom mu ngay dee mu ngay toj kër ga hmm. mais buy wax ak man man du ma xam ne moom mu ngi jooy. mu ngi jooy mais loolu la ak beneen xarit bu ñu naan Yacine Aw. moom it daf ma doon woo bu may wax ak moom day day dal wax ak man daw si jox sama yaay téléphone bi wax ak man ah sama yaay ñaar ñooñu la amoon pour mu mën ma dégg. loolu naka la demee woon. wax naa ci ci mhm, mhm. du du du non dañ ciy dañ dañ ciy dañ ciy bref rek. comme mu tey jii tudd na ko. waaw man sama problème mu mën a ñàkk a téye man ma dem liggéeyal nit mu fay ma. mais peut-être tey ak li ma doon artiste bi ma doon ñi ñi xam ma mhm. tey mën naa dem ci kër liggéeyal ko mu fay ma sama xaalis ma faj samay soxla mais boo demee foofu ak ni ngay déggee ak ñiy ñëw di leen seet si bébé Aïssa mooy liggéeyal fekk naa ko muy fobeere fekk naa ko muy lii après loolu laay éviter moo tax defuma ko mais man bañuma ko mhm. sama ngor may na ma ko mhm. sama diine xañuma ko te lépp lu waay def boole nga ci diine ak sa ngor dagan na kon da nga ko war a def mais dangay xool ak jamono tey fi fi fi àddina bi toll fi rumeur yi fi muy toll nga éviter ko ngir bëgg lu neex say nit ba mu tax nga bañ ko def mais tey tey tey man pare naa pour def ko bu jotee hmm. loolu moo waraloon ma demoon tournée ji parce que boobu maay toog fii liggéeyu ma aw ma tournage aw ma dara ma am samay soxla bopp am fu ma lu ma war a faj te mënuma ko faj moo taxoon ma ne naa dem ñaari addu dara ma dem liggéey am fa dara su ma ñëwee dem la grosse wala Tivaouane Peulh ma am fa sama tooxu teere lu ma am ba mu fekkee ñaari néeg ma mais bi nga bi li nga yaakaaroon bi ngay dem ak li am bokk non non c'est pas mhm, nga dund fa ay yu métti métti métti métti métti métti métti métti métti bi waxoon naa ko bi may soog a ñëw te lu waay waxoon wax ko waxaat ko dëgg la métti mhm. bi liggéey bi laa attanul ndax maman boobu man maa ngi nekk ak sama doom maam Marème ma yar ko sama biir kër mu nekk magum jëmm lépp lu ma soxla sama biir kër moo koy def. Hmm. ma dem ba yërëm ko ci liggéey bi utaatal ko waat beneen jànq kon xam nga ne man yëkkatiwu ma tegu ma. Hmm. kon ku mënul loolu mënoo dem di liggéey. Hmm. mais jom bu xasee ne ci yow tu peux rien y faire. jom bi ne ci man moo ma poussé woon man pour ma dem liggéeyi daan sama doole ñafe sama laay du ma tàllal kenn loxo. looloo waraloon man sama dem. bi ma demee liggéey bi metti na attanuma ko mënatuma xam nga après ma feebar un jour waxoon naa ko dama koy waxaat maire bi ñëw maire woo agence bi ne ko kii xamul bëgg bi ma ko bëgg nañ ko jox ñeneen dil ma pilipiniya mhm. ci laa nag xamee ne fii du baax ndax ñii ni ñu baaxee man mën naa dem feneen ñooñu duñ baaxee noonu ci man mhm. Mhm. moo taxoon nag ma daw dem ci Balde Balde ak Aysatu Saane boobu Serigne Abdou Lahad Mbacke moo nekkoon euh, foofu noonu ci kii bi comment comment dirais ambassadeur bi foofu mm. moo ñu fa nekkaloon ñun waa Sénégal nekkaloon fa tamit waa Gambie ak ñeneen ak ñeneen ndax waa Gambie amuñu fa woon bureau pour seen njaboot buñ fa duggee ñu mën a ñibbisi mm. donc ñoom ñoo fa nekkoon kooku noonu nit ku baax la muy balde balde jabaram ay sata saane dina ma dugalal Mm-hmm. wala korité korité bii moo ci mujj daa yëkkati xaalis bu bari envoyé ma yëkk laaj ma ñaati ginaar laay soxla suñu kër barki Mouhamed mu yónni doomam mu indil ma ko te ba tey mu ngi kawet mais kóllëre boobu mu ngi ko continuer sama diggante mm-hmm. man ak moom te dem bi moo indi xame ba te dem bi moo indi xame ba xam nga nit foo dem te amoo fa ndox doo fa dem mm-hmm. man bi ma nekkee Sénégal avant may teg sama tànk Koweït wala sama visa di moins di génn mosuma dégg baatu Koweït ci sama nopp wala man daanuma ko bàyyi xel xaw ma woon dëkk boobu man ay France laa xam ay Italie ay Allemagne Gabon des trucs comme ça xaw ma woon Koweït mais le fait ne sama ndox mu nga fa allah kulli xaalin dama koy naani mhm. te ba ndox ma jeexee ñibbisi naa si jàmm si jàmm bi ma ñibbisee ma euh, sa yaay naka la ko doon dundee jooy mais sama yaay sama yaay mën na toog di jooy te doo xam ne mu ngi jooy xol lay jooyee musumaa gis sama rongo ñu yaay man mii taawam musuta am fu ma xamee ne bu ma bëggee xam day jooy damay gis bët yi xonq mm-hmm. mu sëgg ne nii sama rakk gaañu na sama yaay mënoo gis rongoñam sa rakk bu bokkal ndey ak sama pour ma xam ne mu ngi jooy damay jékki gis bët yi xonq cur bu jigéen rek di tudd bu góor lan moo tudd yàlla mm-hmm. ma xam ne sama yaay mu ngi jooy ma kot ko ànd ak noonu di jooy mais pour nga gis rongoñam c'est pas facile du tout dafa nekk femme brave duggal Kër ma Massar bu ma laaj bu ma xool neel yaayu bébé ay saa baat bi benn la mm-hmm. kenn la ci koñ bi baat bi benn la wëral fépp fu ñu mës a dëkk sama yaay baat bi benn la benn euh, sooy wax ci sa yaay dangay ànd ak àll waaw mais dafa nekk femme boo xam ne xam nga am na ñoo xam ne am nañu yaay am nañu papa te buñ doon judduwaat ñu leen di tànnaloo amaana duñ choisiraat seen waajur yooyu mais man bu ma judduwaatoon du ma choisir beneen yaay bu dul sama yaay man. su ma judduwaatoon itam ñu ne ma tànnaatal baay sama baay ji laay tànn xam nga lu tax bu dee yëfu àddina boolewu ko yoonam nekku ci bu dee diine yi nga bëgg waxe yàlla ak waxe yonent bi teg la ci yoonu siraatal mustaqim man moom lay choisir mm-hmm. en tant que waajur bu góor mu nekk nit ku bëgg njaboot nit ku pare lépp pour njabootam. Mhm. sacrifier léppam ngir ñun. man lan moo ma dese ci ñoom ma yóbbu leen màkka ma teral leen. say frère ak sœur nga dëkk ak ñoom ba tax na sax dañuy dem seetaani euh, déglu sax euh, témoignage yu sa li nga xam ne rek euh, mooy jabar sa jabaru sama rakk ah. Ah, ah ñu dem ah. ko daal dellu si léegi ci waxtaan bi sur la 7 TV. waxuma billaahi. maa dégg mag ñi naan baax yomb na waaye nag dëkk ca daa jafe. Hmm. mën nga def tey lu baax pour nit teew. Hmm. mais yow hmm. nga koy lu bon ki toog wax ko mu génne lu bon loolu. te jéem a def lu baax. da nga partagé sa lépp. te li may wax nekkul ne man kese nga ko defal. billaahi ci man nga mujjee waaye nag kenn ëppale wu ma ci. da bokk sa yére mm-hmm. da ngay bokk ci sa néeg mm-hmm. ngay partager sa alal yow sa népp da koy partager nga defal doomu aadama bi mm-hmm. moo la gënal yow ci sa bopp nga defal sa bopp <laughs> du ma la fenal nag ndax ëllëg su ci amee ay duma doo ko fekke wallahi te ñi toog foofu mën nañ ko bañ a fekke wallahi waaye dañ ne nit ki bu la defalee lu baax danga koy wax ndeysaan sama doom yemale woo koog dara billaay donte xale laa nag. Mhm. waaye bët boo ma xool xam naa ko. ndeysaan. bëgg nga sa yaay. bëgg nga sa mhm. te jamono ji léegi loolu moo jafe. Mhm. toll fi nga toll fonk say waajur. jafe na ci artiste yu bari. neew ma ni mel ni yow yomb na de waaye nag mel ni yow jafe na de. ndeysaan du ma ne yombut nag waaye ak jafe. ndeysaan. topp nga say waajur bëgg nga say rakk mm-hmm. taaw bu taxawee palaasu yaay booy nga ndeysaan ku baax nga ndeysaan baax nag mënul paas baax wallaay baax nga mën a doon mm-hmm. bu la neexoon nga ne situation bii nga toll nii mm-hmm. lu la neex ngay def ndeysaan wéet nga am nga moyen bi billaay waaye bu ko dara lu bon te ko doomu aadama yal na <laughs> jërëjëf euh, kon nag euh, mu doon loo xam ne rek euh, gis ngeen ko moom Aïcha comme ni mu ko waxee rek aar yaatu na mais non su aar yàggul te nag yenn saay boo ci yewwul lu bari mën na ci am rëccuwul dara nag waaye nag jamono ji bu sañoon fi mu toog di luwe du ko luwe. day nekk ci biir këram euh, ba tax na sax nag gis ngeen sànq mi ngi ñuy euh, moom naa daa mel ni fi mu ne nii moom moo lotisee Tivaouane Peulh <laughs> sànq mi ngi ñuy won koñ bi di ñu wax naan fii xoolal terrain euh, seerul waaye mënuma ci am ah mu doon loo xam ne lu yéeme la mm. Aïcha mm. yaa ngi fii yaa ngi ci location bi ma bàyyi la rek laata loolu sax dañuy ñëw ci ci sa ci sa jabar ba pare mhm. kon yow daal lii lii lii nga ma waxal yàlla na sa jàmm yàgg lépp moom la ndax dafa gis sama raq yàlla boole leen ñu bëggante te yàlla tax bi ñu bëggantee te yàlla tax it en tant taw ci ji taw bu jigéen ci këram ah ma ànd ak sama raq li mu bëgg mooy takk te yàlla tax ñu ànd ci yoonu siraatal mustaqim moo gën leneen mhm. ay xale bu ñu bëggantee nga nekk ay mag sa mag mag ci seen biir danga leen di soutenir nga def la tout ñoom ñaar ñu sëy hmm. nekk ci yoon bu baax bi loolu mooy yoon ndax seytaan daf bari doole ma ànd ak moom dem def fulla ak fayda takk ko nag mu ñëw sëyil ma fii ci kër gi waaw sonalu ma ci dara amul dara lu ma sonal mu nekk nit ku baax ku neex a bëgg lii ma sol jatu moo ma ko ñawal hmm. yëkkati vaccin bi may ma nekk tailleur nag bu mag te mën a kub lool daal di ma koy ñawal. rafet na ma dafa tàng dee. koy sol jëndaat ay vaalam ay léppam di ñaw di ma jox may sol. Mhm. xam nga loolu mbaax la. mbaax alalu yàlla la xaritam la koy dénk kon xadijatul kubra yàlla denk na la mbaax yàlla na sa jàmm yàgg I love you <laughs> lii laa mën a wax loolu loolu na ba tax na rek <laughs> euh, sànq euh, laataa ñuy ñëw ci li nga xam ne sax mooy fii nga loué di mhm. Tivaouane Peulh mhm. euh, damay ñëw rek ci yi nga xam ne rek gis nga ñi nga dëkkal sànq mhm. ummi xam naa moom li la indi Tivaouane Peulh ummi ci la bokk umu kala man loolu leer na moo ma indi fii loolu leer na te bu taxoo dem feneen ma fekki ko nga fekk ji ko fa jëkkër ma fay jële mhm. ma sëy min mhm. fu mu ne maa nga fa mhm. yàlla ak yàlla moo ñu boole mu nekk nit ku riche nit ku gën nit ku amul xaar ma yàlla sama diggante ak moom mais dund nga ay moment yoo xam ne moment yu difficile la comme euh, comme ñëpp yenn saay nga toog maa ngi dégg sax temps yee benn interview boo xam ne yenn saay yaa ngi naan yenn saay nga toog mu metti lool lool lool mais duñ la bàyyi sax ci lekk duñ la bàyyi ci dara. Euh, nga xaar ma mhm. leeral foofu. Mhm. waxuma ne damay toog duma am lu ma lekk. Mhm. yàlla wërsëgal na ma ne saa bu ma xëyee. sama poset am na loo xamante ne dinaa ci am lu ma jëndee lu ma ndékki bu añ jotee mën naa dem resto jënd añ mbaa ma jënd sama hamburger mbala ma jënd lu ma neex mais ñoom ñoo ma mayul ma ubbi sama poset mm-hmm. côté boobu laa doon waxee mm-hmm. mais geste bi ma umu kala doon tëyee ak waa kër ummeeg Diouf geste boobu moo ma jooyloo mm-hmm. mais du la fait que dama sonn wala dama xiif non non sonn ma xiifu ma maru ma raflewu ma barki Mouhamed maa ngi sant yàlla bu baax mais nit dina la téye téyin boo xam ne xam nga li ma la wax nga xëy war a dem jëndi ndékki mu yónni doomam wala mu waaxu tegal la ndékki mhm. di nga jëndeeti añ jot ngay wax waxi nangam nga ne mu ne la sa biir kese jar na ngay ndugg di togg doo fi ndugg doo fi togg doo jëndi restaurant ma ne fi xam nga loolu man dama nekk nit koo xam ne yàlla dimbali na man man maa farasil man mhm. man yàlla noonu ma bindee man dama oyof xol man man dama laabir man xam mhm. naa ne dama laabir loolu moo may jooyloo ku ma defal damay jooy tey tey boo jékki-jékki woon woo ma yëkkati dara jox ma yàlla seede na ne balaa ma laa sant nga gis samay rongoñ mm-hmm. noonu la ma yàlla bindi mm-hmm. bu ñu euh, basé wu ci rongoñ yooyu defee ne dafa mm-hmm. wallahi maa ngi sant yàlla yaa ngi sant yàlla am nga ñu la jàppale waaye boo jotaatoon jël comme ni ñu ko ah, waxee rek doy du euh, ngi fii Tivaouane Peulh danga loué euh, tey jii bu ñu amoon ku la jox daggal léegi benn moom nee na cent cinquante bëri na <laughs> déggoo ma de su amee fu am deux chambres te aw ma benn benn espace. sànq la may woon ay terrain nee na cent cinquante sax bëri na. non loolu laay rey bay bëgg a dee. maanaam maanaam parcelle sax baax na. parcelle waaw waaw loolu baax na wala demi parcelle. demi parcelle lu ma may rey nga <laughs> wax li ma bëgg rek demi parcelle daal man moo may naa wax li ma bëgg rek. waaw génn ci location jox ma. lu ko ëpp nga jël. ma jël rek billaay. xool wet mais mais Aïcha location métti na weer ak moromam jege na euh, nga doon soutien de famille doon borom jom ndax tey jii bu ñu déggee sa frère li mu wax euh, ci témoignage bi ñu dégg li nga xam ne rek mooy euh, dëkkandoo yi. ku mm. wax ne dafay tibb jëmale ci way juróom. ku wax ne li bëgg mooy am kër daal di ne lii man maa ko liggéeyal sama bopp dugal ci way juram euh, muy loo xam ne lu lu lu lu doy waar la. boo xalaatee ne am na ñu fi ne. Mhm. te tey gisatuñu seen yaay. ñii gisatuñ tey seen baay. yaa ngi xalaat loolu. Mhm. ñoom ñuy am war a ñëw wàcc seen kër gis seen yaay ba daw jox leen te gisuñu ko yow mi deseeg sa yaay dinga ko téye sa fukki loxo. Mhm. yàlla seede na ko. yan moment sa yaay yoo xam ne mën nga ñu koo fàttali. ji bugguma dugg ci yenn détails yi mais sama yaay dugg nañ loo xamante ne dund nañ lu neex dund nañ lu metti mhm, ndax maa bëggut a gis moom mu am benn soxla wala mu am lu mu bëgg te awma lu ma ko fajee loolu sama m'a fait mal au cœur daf may jooyloo mhm. Euh, moom moo tax ma laaj la yan moment nga dund ak sa yaay xam ne loo xam loo xam ne suba loo xam ne suba non da nga ñu ciy may tuuti rek pas loo xam ne tey ji pas pas loo xam ne pas loo xam ne tey ji euh, lu lu lu lu intime la wala dara mais moment yoo xam ne rek dund nga ko en tant yaay ak doom ndax loolu tey ji Aïcha dina ñaax ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ay xale yoo xam ne tey ji gis nañ ñoo xam ne bu ñu xëyee dañuy dëkk ak seen yaay mu feebar doo yëkkati mu feebar doo tëral mu feebar doo jënd ordonnance lii tey exemple la. sama yaay bu ma feebaree nopp naa am jaam. Mhm. dama doon nekk ak moom boo bokk benn kër takkaloo ay nekk. Mhm. des fois ma xëy sama ne du ma yor xaalis. ma ne sama yaay mu nekk lu diis ma dem jàkkaarloo sama yaay ne ko yaay damaa xiif wala yaay jëndal ma ndékki wala yaay nàngam nàngam mu nekk lu métti. Mm-hmm. parce que su ma sañoon man rek may jël di ko jox te dund nañ ko maag sama yaay ñu dund mama boobu man ak sama yaay ma feebar lekkul naanul def muy tiim ndeysaan muy xool bay jooy du am jàmm day bëgg ma wér mm-hmm. dafa nekk nit kuñ napp ci njaboot te man man man moom mën naa ne sax du ma mën la gën a bëgg ci ay doomam mm-hmm. mais am daa am lien bu nekk ci tey yaa ngi koy wax euh, du yow la gën a bëgg ci njabootam mais dafa mais dafa am lien bu nekk ci yéen ñaar duma ci wax yàlla na gudd fan mm-hmm. fekki sama njëriñ yàlla dimbali ma ma am lu bari ma teral ko yóbbu ko màkk ak sama papa dugal leen ci leneen lu gën a baax lu gën neex ci li ñu nekk mm-hmm. man loolu mooy sama mébét mm-hmm. yàlla xam na ko fi ñu nekk baax na ñu ngi seenu kër lu yowuñu fayuñu location sama kër papa lañ nekk. mais bëgg naa ah, su doon sama sago tey mhm. man maa luye. ñoom luye wuñu de samay rakk ngi seen biir kër. nekk ay góor yor seeni njaboot di liggéey di xëy di gont di sant yàlla bu baax. léegi nii may wax ak yow au contraire man maa leen di ñaan maa yaakaarati ci ñoom mais ñoom yaakaaruñu ci man. ñoom ñëpp ñu ngi daan seen doole. mais yow tey jii boo ci témoignage yi ñu ngi dégg ñu koy wax am jom moo tax nga teel a génn. ak napp ci yaay. mënul ñàkk ak ak njaboot yoo xam ne macha allah yi ñu ngi seen kër nga ki jigéen yaa war a génn yaa war a sëy mhm. kon doo ñëw di bundu xataloo sa biir kër. Mhm. lool moo tax ma luye mais luye. luye mhm. luye du du du du lu waaw gis nga yor nga say matériel bopp xat na amoo fa foo ko teg nga dem nga loose dëkk fa. du tee yéen a ngi ci seen jàmm yéen a ci seen salaam. donc c'était ça mais ñoom ñu ngi seen biir kër baay. toog seen biir kër xiifuñu maruñu rafle wuñu màgg nañu ay magum jëmm lañu ñu ngi sant yàlla bu baax sam papa waxuma jox ma lii force néewuma cotiser lii force sam papa sonaluma ci dara barki laa ilaha illallah euh, lan nga dund ci aar loo xam ne euh, Euh, doo ko gaaw fàtte laata loolu sax dañuy dem déglu sa frère ndax moom it euh, wax na euh, muy loo xam ne rek yaa ngi naan sa yaay xam naa boo ko gën a loolu itam ah. yaa ko gën a jege waaye xam naa ne daa mel ni famille bi yëpp la ñu dem seetaani frère am daal dellu si waat uh-huh. ah, di leen nuyu bu baax di leen siyaare di rafetlu teewaay bu baax a baax ah, loolu nag di sant rek tey kontaan loolu wax dëgg yàlla bi ma ko waxee dama cee kontaan loolu ndax xam nga soxna Aïssa de di koo xamante ne si ah de di sunu mag waaye di sunu xarit. daanaka féete ñu fi ñu sunu yaay war a féete waaw muy muy ko baax nag ak mbaax dong nag mooy li ma xam ci moom waaw ba ma jógee Touba ba léegi daal 2012 ba léegi lépp loo xamante si yàlla dogal na rek muy lu may dugg la waaw ah, man dinaa ko gis ci sama wet mu nekk koo xamante ne si wax dëgg yàlla nekk na mag bu laabiir mag bu rafet xol mag bu baax et puis seetaanut ay rakkam benn yoon waaye seetaanut ay yaayam benn yoon waaw lépp lu mu am rek ay mbokkam lay dimbali. ba tax na man it lépp lu ma mën a dugg rek daanaka damay bëgg di ko ko wax su ma ko waxee da da da ciy da ciy mën a da ciy mën a def képp lay kàttanam ci alalam ak ci xelam mu rafet ak yëpp waaw jigéen ju baax la ndax moom mooy sun taaw moom la sama yaay njëkk a gis ci doom ak sama papa moom la njëkk a gis ci doom waaw man damaa topp ci moom waaye daal li ma mën a xamee daal xam naa ne bu nekkoon góor la daal dana yili fi àdduna ndax wax dëgg yàlla fi ne nii féete foofa euh, bari na góor ñu bari ñu ngi ci kër waaye loolo muy def ci kër moom wax dëgg yàlla moom moom jàmbaar la daal jàmbaar la. man de li ma mën a fàttali ko ci ay jaar-jaar li ma dund mooy bi may doog a jógee Touba mooy bi ma ñëwee fekk naa ko mu ne ci artiste bi di liggéey booba wax dëgg yàlla booba jamono doy na waar ndax booba ñun ñëpp ay ndaw lañ amaguñu liggéey waaye moo téye woon kër gi ci loxoom jàppale ñu jàppale ñu ba yàlla dogal ñu amay liggéey. bi ñu amee ay liggéey na ba léegi teggul tànkam wax dëgg yàlla jàppale na ay rakam bu baax ci seen jàng di leen jàppale ci lépp waaw ba ci tabaski jotee daal buñ ko gisee sunu xel dana dal bu baax a baax ndax dinañu mën a dimbale ci lu bari ba ci événement yëpp gunay xottil leen sama doom yi ba ci avant may am soxna man mi sax jàppale gu ma jàppale ba ni ma amee soxna nga xam ne loxoom génn ci ak alalam ak xelam ak ak xalaatam yëpp daal woo ay xaritam ak yëpp waaw ba ci gone yi kër ga anniversaire sax buñ ko amee su ay sota ñëw daanaka mën naa ne dara sax du jag ndax lu ci bari da ko ci dañu ciy jàppale ci wàllu dooleem ah, yàlla dimbali na ko nag alhamdulilah jàng na alxuraan ba mokkal ko xëy na loolaa tax sax mënul am dara daal lekk bàyyi ay mbokkam lépp lu mu am daal ay mbokkam la koy defal loolu daal xam naa ko ci moom xanaa di ko ñaanal mu gudd fan lool te wér ñaanal ko saa defal ko mu am borom kër bu baax bu ko mën a yor saa borom ubbi ay buntu wërsëgam ak liggéey bi am si moom lay liggéey saa ubbi ko ci bu baax a baax a baax di ko ñaaral ñaanal baax rek saa borom gën koo taxaw bu baax a baax. wax dëgg yàlla dañuy kontaan bu baax mënuñoo def lu dul gën a kontaan ndax ndeysaan bu ñu waxee nañu wax ci bébé Aïssa wallahi dinañ sawar ndax tey ji tamit ñun mënuñoo nekk ay xale. doonoon ay xale yu ndaw biñ fàttalikoo ba tey moom rek lañ xam mu nekk di ñu jàppale ci bépp côté biñ doonee ndaw ba tey lépp luy cadre événement wala lu mu mën a doon mu taxawuñu ci ba tey kon ñun mënuñu koo ñàkkal fayda benn yoon billaahi wallaahi mag ju baax la barki Seydina Muhammad mag ju mot mag la barki Seydina Muhammad rëccu wu ma ñu ne ma kan mooy seen taawu pap ma ne bébé ay saala rëccu ma kan mooy sa mag ma ne bébé ay saala rëccuma ko benn yoon ndax xam naa ne billaahi xolam bi li ci nekk barki Seydina Muhammad du bon te bon mënul nekk ci moom barki xam Muhammad mag ju baax a ngi nii mag ju bëgg ay raqam mag ju bëgg ay rakam a ngi nii ñun buñ fàttalikoo nag ba tey moom rek lañ xam billaahi wallaahi wa man nag mel naa leen wax ci sama mag bu ma bokk ak ndey ak baay day mel ne sax maa ngi wax ci sama bopp te mënumaa wax ci sama bopp ndax dañ na saabu du fóot boppam waaye dégg naa wolof njaay ne mënul fóot boppam waaye sañ na ne mën naa setal yére ba mu set barki Seydina Muhammad mënuma def lu dul di ko ñaanal jàmm ju bëree bëree bëree bëri yàlla na ko yàlla may jàmm yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér gu yaram yàlla nañu ko fi yàlla bàyyil yàlla nañu ko fi yàlla taxawul lépp lu mu bëgg yàlla na ko ci yàlla jàppale billaahi wallaahi ndax ay Aysatu ñun mënuñoo def lu dul yéene ko jàmm ju bëree bëree bëri biñ fàttalikoo ba tey xamuñu keneen ku dul moom billaahi wallaahi biñ nekkee xale sax sama yaay dina dem liggéey mais moom moo doon des ak ñun diñ téye diñ dimbali diñ jàppale ci lu bëree bëree bëri bëri kon ñun mënuñu ko fàtte benn yoon billaahi wallaahi wa taalaay ay sata mag sama jàmm rek lay ña lañ lay ñaanal ak salaam barki Seydina Muhammad yow boo guddee fan lépp dina leer te sa yoon leer na ba pare barki alquraanil karim maa ngi lay ñaanal nag ñaan yoo xam ne maa ngi koy tibbee ci sama xol di la ko yónnee billaahi wallaahi wa taalaay man maay sama seexu yaay waaye bébé Aïcha mooy sama taawu yaay amuñu lu dul moom barki alxuraanil karim ay jamono metti woon na torop mais billaahi wallaahi wa taalaay buñ gëstoo moom la ñuy séen jàmbaar la billaahi jàmbaar la sam boppam a gënal nag du bañ naa la yow miy ŋàññi sa mag sama yoon nekkul ci yow yow miy ŋàññi say say mbokk sama yoon nekkul ci yow mais yow miy ŋàññi samay mbokk bis boo jàkkaarloo ak man ba may andi lool dinaa la woon ne man sama bopp kenn du ko laal ndax kii moo ma gënal sa yaay kii moo ma gënal sa baay kii moo ma gënal sa moom ak koo doon ndax tamit lañ bokk neexul ba neexul bokkuñu ko ndax lii benn ndey la ak benn baay duma nangu kenn di yëkkati kàddu gu ñaaw di ko teg ci sama diggante ki ma bokkal ndey ak baay Bébé Aïssa billahi ñu ngi lay ñaanal jàmm ak salaam yu bëree bëree bari sa xol yaatu na tabe nga Euh, jërëjëf euh, kooku sa frère la euh, dégg nga li mu wax ñoom ñëpp daa mel ni dañoo nap ci yow. <laughs> dañ ma gëmeewul. Mhm. nee naa leen mag yomb na waaye mag bu gàtt yombul <laughs> yàlla def na mag bu gàtt la jàpp moo tax mënuñu kaa gëmee. moo tax mënuñu kaa gëmee des fois dañuy wax dara ma ne ko aaru na mag yombul surtout mag bu gàtt day réew bay bëgg a dee day ma ne ko mag yombul de mag bu gàtt moo jafe <laughs> te yéen yàlla may na leen mag bu gàtt ma nag na duma laal ma ne ba pare jongo ma <laughs> loolu duma ko laal daf bëri doole <laughs> kooku tam sama rakk la ñoo mm-hmm. bokk ndey ak baay mm-hmm. mu nekk nit ku baax moo moo nekk borom këru soxna si ma doon teew maye sànq mm-hmm. moom mooy borom këram ndeysaan sama rakku bopp ji démb la fi jóge lépp lu ma soxla ci sama nekk toxal lal ak puus liiw ak daaj ak yëkkati lu diis mooy daw si. ñëw yàlla xam na ko su ma nee sama mbàjj mi lim na dama war a yóbbu nangam mu ne ma bàyyil magu jàmbur bàyyi ma ñëw. mu ñëw fóot ba mu set weer. Hmm. mu nekk Baay Faal bu Baay Faale ci biir Baay Faal. Hmm. barki yonent bi aaruna yàlla na sa jaamu yàlla yàgg. Hmm. sama rakk bopp ji kenn du yow ci man. ñoom ñëpp ku ci nekk am nga jaar jaar ak ñoom ñëpp samay rakk lañu samay xarit lañu. mënuñoo dugg ci xuus bi yëpp ci biir mënul mm-hmm. nekk du lépp foo jaaral say raq nga toog ci télé bi di ko weeje du lépp ngeen may laaj ma wax lépp en samay raq lañu am na fuñ ma féete am na fu ma leen féete kenn ku ci nekk am foo féete sa morom mhm. su ma bëggee ajji rido bi a jotuma ko ñooy daw si ñëw mhm. su ma bëggee puus photo yi ñooy daw si ñëw su ma bëggee yónni fu sori ñooy daw ñëw mhm. su ma jëndee ceeb di ñëw ñoo koy yenu ci seen mbagg yi ñëw sampal ma ak yeneen ak yeneen loolu doon lu neex ndax nag mag ba bu nekkal rakam nga jékki loolu ma mës a wax dafa mës jënd saaku ceeb ci bitig néeg bi daal di dugg si ne papa wax naa sama rakk bi Ablaye mu dem jëli ko ni ma gis nga am nga njëgu saako ceeb waaye amoo doole boo yenoo saako ceeb léegi moom amul njëgu saako ceeb waaye am na doole bilaay looloy àdduna gën a nekk xale léegi macha allah mu ngi yor soxnaam yor ay doomam looloy àdduna liggéey liggéeyam alhamdulilah alhamdulilah kon nag euh, tey jii dañuy dem euh, seetaani tamit euh, sa maanaam ki nga xam ne rek moo la logé. nekkatoo leen ki nga xam ne rek mooy borom kër ak locataire wees ngeen foofu. waaw Oumy Sow <laughs> ñu dem seetaan ko daal dellu soit léegi ci waxtaan bi sur la 7TV. ku oyof nit ku bëgg nit. ndaxte man dama naan ku bëgg sama njaboot rek danga ma bëgg te dafa bëgg sama doom. ndaxte Oumy Kala mi ma ko mi ma ko présenté sama mag ju baax la ndax maa rakkam ñoo doon ànd mu baax loolu mu indi ko sama kër mu dëkk fa te ma lu ma ko indi lay woon ba mu dëkkee sama kër ba léegi bébé Aïcha macha allah bu xëyee suba bu ma gisul dina ñëw sama néeg dina sama doom day jël moom lay fanaanoo day jël xale bi fanaanoo moom buy dem ne ko kañ jëm bu may génn sax danaan ma bu mu dem man maay ànd ak moom mu nekk nit ku oyof nit ku baax nit ku tabe ndax nit ki doo ko gis nii ren nga ne kii dafa rëy wala dara man ba ma koy gis dama naan ah kii rek ku rëy la mais ndekete nit ku amul benn problème la ba dëkkee sama kër yàgg na yàggul waaye man mun naa ne sama lépp daal moom la des fois sax ma am sama problème moom mi mooy ñëw defal ma nekk man defee nii nii ngay def nii ngay def te defe naa su ma ko magul ma magum maguma man maa ko mag foofu xam naa ne mais loolu yëpp xoolu ko nekk na nit koo xam ni daal bëgg na nit bëgg na famille te bëgg na seen waa kër ba ma ko xamee yàggu may seen kër ñëpp laa xam ba si yaayam may mujje ñëw barki démb ay rakkam ñépp laa xam ñëpp la ma indil sama jëkkër da koy tooñ naan ko yaay sama jigéen jël na sama doom sax ne ko dama la ko may may naa la sama keroog sama jëkkër ba muy tukki fanaanoowul ak sama doom gisul sama doom ndax bébé Aïcha la dem xale bi su ma ko waxee sax mu ne ma tatalaay dem sama jëkkër ne ko ki démb mu ngi naan xale bi ah yow léegi bàyyi nga ma fanaanatoo sama néeg lekkatoo sama lekk léegi féetewal si bébé Aïcha xaw ma lu xale bi wax mu naan ko ah yat laa lay wutal mu génn ma koy tooñ ñaan ko dégg nga lu juuf wax nangu nga suñu doom démb dama jël xale bi yóbbu ko mais dafa xëy na ma vidéo yi ma def ak moom moom laa jël def ko statut di ko xool ndax dama jël sama doom yóbbu ko sama taaw bi parcelle mu nekk fa mu ne ma nelawu ma Aminata mi nga yóbbu wéetal na ma damaa mujjee kottu njaani njegen yaay sànq ba mu ko waxee sama yaram dafa daw mu ne ma njege naa yi laa jël kottu ko pour mun a tëdd pour mun a nelaw xam nga loolu ku baax ren moo koy def ku bëgg xale la ku bëgg nit la sa dafa bëgg nit man des fois damay xëy naan ko tey damaa sonn toggu ma mu ne ma ah lan la ma ne ko dara li ummi kala wax léegi maa koy dëggal Aïcha lu mu yor day ñëw sama néeg billaay wallaay yëkkati xaas jox ma ma ne ko lii pour lan la lu ñuy togg ma ne ko lu ñuy togg sa yoon nekku ci mu ne ma damaa damaa xam ne rek yow danga maa war a wax ma ne ko du la wax mu yëkkati xaas bari su ma bañee mu sànni ko sama néeg wan ma ginnaaw te pourtant am naa ko munoon na ne damaa dëkk si kër gi dama luwe damay fay mayu leen ma saraxu leen ma damay fay. non moom moo yaatu ndax bu dëkku woon si kër gi am nu mu mel ak man tey ji bu ma ko rombee damay daan ko naa def dem sama yoon mais du ma génn te gisuma ko moom it du dem fenn te woowu ma des fois day tukki sax. man duma ko woo moom moo may wax man moom soo bëggee sama njaboot rek dama lay bëgg parce que am naa benn jour boo xamante ni guddi ku nekk nit dina nekk ci nit moo yow ak sa borom kër ngeen jote mu dégg sama néeg may wax dafa ñëw rek xëcc ma sànni ma ci biir néegam ma am kersa nag boobu ba léegi dama ni ko su may su may waxati sax dama lay xool dugg ci biir wax ma yedd ma yedd ba ma wàccat te chaque jour bu déggee may waxit noonu lay def ma ne ko yow man ak yow danga sant saw ma sant saw ngay pël may pël dañoo bokk kon ndey ak baay parce que li may defal ak li may yedd wala lu may conseiller nit ku baax ren moo koy def nit ndax munoon na lu mu dégg ne sama yoon nekku si génn ci biti dëkk rek la mais def dañoo dem daal man mënatuma wax ak si moom parce que dama ko def comme ki ma bokkal ndey ak baay waaye yaayam nag moom buy wax si yaayam sa xolam day tooy moom buy wax si yaayam kii dafa bëgg yaayam ba man xam naa ci daal dafa nap ci yaayam day toog ne ma nii tey de dégguma sama yaay wala damaa tëdd bëgg di génn sama yaay xëy de ne ma maa ngi dem man ne ko dangaa kii doongu de xër rek mais sa rakk yaa ngi fa mais ak sa mag mu du toog journée te jëlu téléphone am woo yaayam taxaw wax loolu chaque jour la man mun naa ko seede wala mu woo rakkam yi ku ne mu wax rakkam yi duñ toog ñaari fan ñett te ñëwuñu fi ñu góor ñi te ay xale yu góor lañu munoon na ne man am naa ay rakk yu mag ñoo ma war a yore mais bébé Aïcha lu mu yor sedd na ko seen waa kër wallaay la azim lu mu yor jox na ko seen waa kër ak ñun ñii nag man macha allah lu mu yor sedd na ma loolu ku baax rek non kii dama koy ñaanal dama koy ñaanal yàlla na ko yàlla bettee xéewal si barki Seydina Muhammad te incha allah dina am lu baax ndax ku baax lu baax rek ngay am dina am lu baax ndax booy sonn si sa yaay la wala si sa papa fay baa ngi ñëw de xëy na yaa ko dul gis mais yàlla dina la fay léegi te kii yàlla da koy fay ndaxte lekkul baay ay rakkam lekkul baay yaayam lekkul baay papaam lekkul bàyyi it ay ni mu nekkal kon kooku yàlla dina ko bettee xéewal. jërëjëf euh, kon nag Aïcha mu mel ni euh, ah yaa ngi <laughs> yow looy jooy fi mu ne nii sa doom bi ngay jooy sa doom bi dem ngay jooy wala. <laughs> billaay dama xam ne ndeysaan mbaax de di alalu yàlla la. Mm-hmm. te xaritam la koy dénk. te ummi tamit ku baax la ummi bu bon amul ndax sama mag ji ummi la tudd ummi faal. Mm-hmm. ak ummi sax kon ban ummi moo bon ci réew gisuma fi ummi bu bon ñi ma jot a xam amut. donc moom it nit ku baax la ndax gis nga jigéen moo géré kër. góor bu ko neexoon jëkkër ji Moussa sama magu boppu jooju mën na xëy na ko boo yàqee dee koy tibbal del def lii del def laa mais am na nu ma doon yàlla xee lekk bi wala am kanam gu ma woon rek du ma suur. kon kër jigéen moo ko yor. lu jëkkëram baax baax moom bu bonee sama dinaa toog ci kër gi nekk ndax damay fay sama xaalis. mënuma faa tax a toxu itam. ndax am na fulla gu toll ne faraa koy romb nuyu dem nuyu ñëwaat mais baax bi ne ci moom yàlla sedda na ne sama mag ji day yàq añam fii mu ne ma kaay am fekk ma naaje yow ma ne ko suur naa wala mu ne ma ba nga génn kër gi dañ may xëccoo kii naan ba nga génn kenn naan ma yow la rek ma nekk ci diggante bi fu ma jem kii bu ma ne doo génn te yàqu ma fii nga yaañee force kenn ma yow rek la ñuy xaar añ man ko waa kii mu ne ma yow la rek ne ragaj coupé <laughs> léegi ma nekk ci di damay mujj daw a fee ba pare ñibbi si waat ci kër gi ne ko kii mu ne ma nooy a añe nga ba pare looy lekk ma mujj xolal billaay wallaay du ma ti mais damay dugal rek damay xel di dugal mm-hmm. su ma paree damay jënd ay singom lu ne ma koy yëy pour mën a nekk ci jàmm loolu yëpp am baax la mm-hmm. ñoom ñoo baax ñoom ñoo ñoom ñoo gën ku gën ñoom ñii ñoo gën yàlla xam na ko ay nit ñu gën lañu ay nit ñu baax lañ waaye nag noonu la taalibe yonent bi lañ nii rek lañ mën a mel. baax rek leen a war. baax rek leen war ay nit bëgg naa leen ñun tamit sama Amina yàlla na dund. ba ñu langal ko sa doom bi daa mel moo jël sa yàlla na ba ñu langal ko. barke yonent ma def sama bu jolololi. waaw ne faax toog. naan ko maa koy joxe <laughs> incha allah macha allah kon hmm. nag eh, gis ngeen lii lañ leen indiloon tey waaye nag laataa ñuy teg dañuy dem seeti ki nga xam ne rek ah mooy daj dëpp gi. waaw mu ngi noonu mooy ki nga xam ne rek ku ko tudd mu jooy ay dinaa ca dem de. yaay booy ñu dem déglu ko daal dellu si léegi ci waxtaan bi sur la 7TV. <laughs> waaw bébé Aïssa buñ ma waxee naa wax si moom dinaa si sawar lool waaw ndax mooy sama taaw wax dëgg yàlla mooy sama taaw lu ma am. mu bokk ko ñu ko war a bokkal ñu man maay mooy sama taaw moom naa njëkk am si doom lu mu am mu bokk koog man ak ñu mu ko war a bokkal ñi moo bi ñu waxee naa wax si moom wax moom loo xam ne tey ma naa si sawar si wax bi bu baax na lu mu am yàlla si yàlla def barke lu mu am bokk na koog mu ko war a bokkal ak man mii na yem mooy sama taaw bu jigéen lekkul bàyyi lu mu am mu defal ma si luy sama soxla wax dëgg yàlla mu ngi si daw lu mu mën waaw maa ngi sant yàlla di leen sant di ko di ko a gudd fan ak wér ak wér la yàlla ubbil ko wërsëg ah may ko gudd fan ak wér te maa ngi kontaan na sama xol seet na si moom guy maa ngi sant yàlla di ko sant. jërëjëf euh, Aïcha Aïcha yow Aïcha fan nga jaar pëli fan nga jaar fan nga jaar yaay nekk baaba ba génn nekk ci culture bi man loolu ma jaaxal ah. nee ne moom mënul wax bëggul télé baaba baaba kay du génn télé baaba kay buy génn ci télé day fekk mu tiim kaamil bi nit ñi di jàng muy tekki ndeysaan waaw wala mu nekk ci jumaa ji jiite waaye en parlant de loolu nañ ci wéyu bay ne ku ku ku jàng nga ba wàcce macha allah te lépp moom ay yooni yoon laa wàccee li ma wàccee mënuma ko compter du vingt yoon ëpp na ko parce que damaa toog ak sama papa sept yoo xam ne chaque deux jours damay wàccee kaamil chaque deux jours fajar la ma yee ma jàpp julli jël baxara hmm? waaw waaw continuer ay anaam aaraaf ay maayida nisaa yépp lay jël jàng jàng jàng quinze xisib ma arrêté su ma añee ba pare jëlaat quinze xisib su ma xëyaatee jëlaat 15 hizib beneen 15e bi jëm suuf day tombeeg bopp après bopp yaasin wa ma anzalna ala qawmihi min baadihi min jundin min as-samaa hmm, wa ma kunna foofu lay tombeel ma eggali wa ma anzalna banaas ma wàccee ma xëyaat commencé waat pendant sept ans hmm. loolu ñaata yoon kaamil la bokkut ak li ma doon nafar suñu école bokkut ak après kaamil am sam ne ma kaa ñu dem am na ku ñuy wàccel kaamil am na ku tabax këram bëgg ñu ko kaamil mu ànd ak man ñu dem ñu def kaamil ñëwaat ak yeneen ak yeneen ak yeneen bokkut tag man samay nafaru bopp bi ma bàyyee loolu ak def loolu aar tànc ma amatuma temps bi teewul sama kaamil laa yor sama sama kaamil bi gën a mag sama téere fii la ne mu ngi nii sama téléphone damay jàng alquran mm-hmm. damay jàng alquran damay jàng mu sama kaamil sama téléphone yor naa sama déere sama néeg fowee wu ma ko te duma ko fowee ndax lu way am diine ko gën mhm. lu way mën a am diine moo ko gën te gis nga am am boo bëggee am ak loo mën doon secret yépp a ngi ci alxuraan ci kaw nga xam ko mais man xaw ma ko parce que firiwu ma mhm. aaya bi jàng naa ko mais xaw ma lan lay tekki man mm. firiwu ma moo tax doo xam aaya bi lii lay def aaya bi lii lay def mhm. mais ci sama papa dinaa ci xel di fortaatu dinaa ci xel di fortaatu ndax moom def ba tax na yenn saay sax nga jaaxle toog wëlbatiku dama koy woo mu génneel ma ay aaya fan yee passé sama xaaju kanam gi moo doon metti hmm? jékki-jékki gëmm mhm. bu gëmmee ñu ne woo ma ne ma carrément ma woote ne ko papa lii ak lii ak lii am ay aaya yu ma jox ne ma defal lii defal lii boo defee lii di ci gis lii boo defee lii di ci gis lii mu nekk ay aaya yu nekk ci alquranul karim mhm. loolu sant yàlla la. sant kon boo amee waajur bu jàng. Mhm. am nga sens ndax diine ak lislaam di nga ko xam. Mhm. mën ngaa sob nag topp addina rek di darti darti. mais nag di nga xam sa diine dafa am lu importance. yàlla baax na. tey ji sa yaay dégg nañ ko sa dégg nañ ko. yaay moom. yàlla xam na ne bu ngeen bëggee tuuraat sama xewal rek tuddaat leen ko. Mm-hmm. kenn du moom. dégg nañ mu wax ci yow. li mu wax yëpp moom la moom mooy sama yaay lu wax xam na doomam ca doomam itam jaralu ko muy toog di wax loo xam ne amut li ma dund ak moom rek la wax kon yaa booy man dama lay ñaanal nga dund lool loo dund doyul yaa sama papa ngeen dund di ñu gunge kenn xamul. Mm-hmm. maa ngi leen di wax loolu mais mën naa maa leen di njëkk a dem. allahu alam bi muraadi yi yàlla rek moo xam mais dama leen di ñaanal ñu gën a dund ba ma leen di weer di leen weri barki yonent bi te bu dee rek naree am yàlla naa dem man ñoom ñu des hmm. ndax sama raq yaa ngi fi te bëgg nañ seeni waajur di leen gunge ba ci kanam hmm. kon nag ñoom yàlla nañu dund hmm. yàlla may ma tamit loo xam ne chaque jour bu ñu amee suñu amul soxla sax man naa jël di leen xëpp rek ñuy gën di kontaan rek. loolooy sa mbébét. waaw loolu mooy mhm. sama waaye bu ñu amee ku ñu daggal fii ci Tivaouane Peulh tamit ñu ah, jël. ah kii 3 millions <laughs> ci ginnaaw ay kii noonu ay kii bu ndaw rek 3 millions. <laughs> bu ndaw yàlla baax na yàlla jeexul. wallaay wallaay liggéey nga ci aar loo xam ne waa nga ko mën a am de. yàlla baax na rek liggéey nga ci aar loo après ñu toog na ci aar wallaay loo xam ne war na ko mën a am. 3 millions daal boo ko amee fii moom dina am moom 3 millions di nga am day am ci sept voies du cœur la jaar <laughs> day am incha allah kon nag ñu koy jaajëfal bu baax a baax man ma ne xarit yomb na waaye xarit bu gàtt moo jafe déggal fi mu ne fi umu teg ñaari umu yi teg seen loxo fa laay taxaw ci digg ba kenn mun ci dara. umu kala bu ma xal kii. umu bu max fii umu bu max nii ma ne. doj ci digg bi nga xam ne beneen émission buy am soñaa la ñuy wax. <laughs> jégal li mbaadu. <laughs> kon nag ñu lay jaajëfal yow ku baax nga Aïcha koo mm. xam ne rek euh, ndeysaan euh, ku oyof xol nga comme ni mu koy waxee nii nii la mel bu waxee yow ñaari baat ronga ñuy tuuru na kon nag Aïcha ñu lay jaajëfal bu baax a baax waaw sa Mareetu moom sa xarit la euh, moom it sa xarit la Mareetu ah jëlal leen ma kii. <laughs> ndeysaan baax ris gen moom la da ngaa dund ak moo tax ma xam ko. Mm-hmm. moom mi nit ku baax la. ndeysaan euh, émission bi ma def fan yee këram gii laa ko defee. Mm-hmm. te ko neexoon ma defee ko sama néeg wala ma defee ko sama kër xarit bi wala feneen ak feneen. mais def ma ne kaay ko sama kër. Mm-hmm. jëkkëram Ousmane mu nekk nit ku baax naan ko kër gi sa kër la def ci loolu la neex may tourné ji mu diri valise. ne ma yóbbul nga sof defal lu la saf mu ngi nii kii mooy Mariétou. <laughs> Ah, Mariétou merci beaucoup yow it ci jàppale bi ñu ngi lay jaajëfal. te bàyyi sa baax rek di wax. daa baax avant tout maa ngi leen nuyu dama ñëw fekk ngeen di tourné. ndax dama liggéeyi woon. te bàyyi baax rek di wax Kalame mooy suñu mag moom ma booleeg moom te ba ma booleeg ba moom ba léegi rëccuwuma ko. nii laa ko xamee du tricher. te li ma gën a neex si moom alxuraan bi muy jàng moom ma gën a neex si moom te bëgg ay rakkam. ndax man damaa bëgg samay rakk. te ku bëgg rakkam bëgg sa yaay rek dama lay bëgg mhm. looloo tax ma jàpp kala jàpp ko mhm. fii nag lu mu fi bëggul rek lu mu fi amul rek si da koo bëggul <laughs> ndeysaan yéen a baax rek nit ku baax la jërëjëf jàpp ko jërëjëf man waruma woon wàcc heure mhm. moom moo tax ma bàyyi sama liggéey ñëw gis nga tëni laa fi dugg yow tey liggéeyul kii tey day fay de tey seetaan ko rek kon ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax koy ñaanal rek <laughs> yàlla na jërëjëf bëri la ko yàlla jërëjëf jërëjëf jërëjëf yàlla na dund dund ba am kër yu bëree bëri bëri ba génn ci location may may ah, ku ne ne ma may wallaay ku nuyu ma ne la kaay maye tax amagoo kër maye doo nga tax amoo kër <laughs> man barki démb Ndiaye la ma jox xaalis pour luyee raqam néeg mm. man maa ko luyee ndax sama benn yaay moo ma jox néeg këram kii pour ma koy luyee mm. mm. barki démb Ndiaye raqam bu mu bokkal ndey la ma jox xaalis luyeel ko néeg mm-hmm. kuy defal loolu raqam kon tey du amee du ko ñàkk du ko ñàkk ah, waaw ñu bàyyi la nga tàggoo yàlla baax na Mariétou yow tamit ku baax nga ndax bu la neexoon tamit mu metti lool mm-hmm. mais tu es quelqu'un de bien vraiment moom ak ay doomam fan yee dama feebar sama mag ji nekku fi woon ma toog xëy mënuma sax jóg yàlla xam na ko ma mujj ma woo ko ma ne ko ummu kala newu fi kee newu fi lobe yaa fi ne yónnil xale ñu ñëw dimbali ma mu am lu ma lekk ñu rootal ma mu mën a sangu hmm. mu yónni doomam mu daw si ñëw ñu defaral ma café ak limon yi tout sa dama feebaroon mais man nammatuma suñu waa kër ndax ñoom ñi te am na nuñ ma doon téyee su ma feebaree hmm. damay woo sama taxi man hmm. mu droité ma dem suñu kër su ma wéree ma ñëwaat ma ne terrain bi oto da ciy tegu sax nag yow wuyu ma <laughs> wuyaay ci oto bala <laughs> nañ terrain ba pare ba pare sax terrain ak oto dégg li ñaa yay dàq fi ne nii ma bàyyi la yàlla yaa ngi dégg boobu <laughs> ma bàyyi la nga tàggoo uh-huh. donc kontaan naa kontaan naa bu baax yàlla xam na ko maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant kullu ku ma xam. Mm-hmm. te man xamuma la. di sant kullu man koo xam ne man xam naa ko sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp di sant sëñ Babacar Samb moom it sànq la ma woo téléphone ne ma na nga xam looy wax boo fi waxuloo warut a di dinaa la fekk foofu toj salu lu bon ma ne ko waaw dinaa xam lu may wax te loolu yëpp bëgg la. ku la bëgg moo lay bàyyi xel di xool li ngay wax ak loo dul wax. di sant sama famille yëpp bàyyiwuma kenn di sant sama yaay di gërëm sama yaay di sant sama yaay di gërëm sama yaay di sama yaay di gërëm sama yaay di gërëm waa Tiwaawoon yëpp kulluhum di sant sama maam ay Binel ma lay ñaanal nga gudd fan lool maam deseetu ma maam ci réew mi yow rek laa dese dundal ba say may di baawaan maam boy yow loo dund doyul nuyu naa sama raq yëpp. jërëjëf ñu ngi koy ah. jaajëfal moom it bu baax a baax di la nuyu yow ku baax nga yaa ngi may woo rek lu ne ma yàq la ko. wallaay naa la dafa teel ak. nee naa la xarit yomb na waaye xarit bu gàtt yombul. man fi mu nii waxi gàtt bi ngay ba de. ma ne la ah. fi mu ne moom maa ngi ci aaroon na. mag yomb na waaye mag bu gàtt yombul. waaw <laughs> kon kon nag mag bu gàtt yombul. <laughs> waaw waaye xarit waaw gàtt ba pare jongo ma boole ko xol bu rafet macha allah kii mooy Bébé Aïcha gis ngeen li nga xam ne rek def na ko ci aar muy loo xam ne rek macha allah waaye nag dégg ngeen sànq ca début ba dégg ngeen témoignage yi boo gisee mu toog ba heure bi di luwee sax xol ba ca la ndax nag lu mu am ak lu mu gañe ci aar rek séddale na ko ay waajuram séddale na ko ñi nga xam ne rek ñooy ay xameem bàyyiwul kenn ni mu jàppee famille noonu la jàppee ni nga xam ne rek ñooy ay euh, dëkkandoom mm-hmm. kon nag euh, di ko wax ni rek lu ëpp lii dina ko am dina fi am terrain ba am fi oto ba am fi leneen ak leneen ba am fi li nga xam ne rek moo gën a rëy ci moom mu yóbbu ay waajuram màkk yàlla na ko suñu borom def kon nag euh, ñu leen di jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen a doon teewlu di leen wax ni rek ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax mm-hmm. àndoon ak yéen àndoon ak suñu cadre yi nag macha allah. Euh, mhm. Souleymane Sy ak euh, Papa Diop ci wàllu cadrage bi. Mhm. di jaajëfal bu baax euh, waa montage Lamine Mbeng ak ñi ci ginnaawam. Mhm. du ñu ma sa fàtte production yëpp ñu ngi leen di bàyyee xel. di jaajëfal ñi doon teewlu waaye nag di jaajëfal sama rak ji rakk ji borom Amélie Couture ana maa ngi koy jaajëfal bu baax baax ci tënu bi. di leen wax rek dig daje mardi incha allah ak keneen ci li ci xolam. ci seen émission 7 voix du cœur sur la 7TV 7TV nag da nga bëri ay fans. am pagaay macha allah suuf da ngay ñëw. naa ñëw def da ngay ñëw ci kaw ba ci suuf ñëpp say fans la. ayoo ba ca bopp ba. <laughs> ca bopp ba la commencé laa la. comme moom télé ba <laughs> ca kaw. ca may mun a la commencé ba ca suuf. dégg li may mun a I love you waay. <laughs> merci beaucoup à